mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat euh, di leen gërëm di sant yàlla bu baax di leen euh, ziar euh, di ko gërëm ci ndimbalam ak kàttanam ak sago ak dayo ñu may ban mën a toogaat fii di sant yàlla di ziar ñëpp di leen gërëm di nuyu El Hadji Modou Diouf topp Ablaye ak groupe solution yëpp ak ñi koy seetaan solution TV solution info TV ni ñu koy defee saa su ne alxamis. Euh, ci waxtu wi ci trente minutes chrono tey ji ñu dellusiwaat fa seeni waxtaanee actualité actualité bi nag benn la rek mooy rapport élection présidentielle yi ak Macky Sall ak euh, ni mu ci doxalee ak élection yi ñuy jàpp le 15 décembre ci ay waxam ñu bari nag ànduñu ci mu mel ni seul contre tous ñëpp ko woon ginnaaw Macky nag lii mu def tey ji seetaan bu yàgg la rek waaye yàgg na kaa nàmm yàgg na cee dox yàgg na dëkk ci maa tey léegi nag li wala fi naan géwél bu reppee ci xare lu mu jin xeeb ko waaye burtin bu reppee ci xare lu mu ko jin da koy xeeb te baadoola bu jibee gàcce fekk tàbbi ca du am jàmm baat yooyu du tey laa ko njëkk wax yàgg naa ko wax parce que nag xam nit ki xam jikkoom a ko gën ñun Sénégal ñun dafa bari ci ñun ñuy nax sunu bopp ñuy nax suñu bopp parce que li ñëpp di wax tey jii en deux mille dix neuf wala avant deux mille dix neuf ba ci deux mille vingt deux mille vingt et boo ko musaana wax daa am fu lay dëkkal ñii jàppale boroom xol bu bon ñi jàppale ku iñaan ñi jàppale ku réew ñi jàppale lii ak lee xam ne Omar ibnu Xattaab bi mu nekk ak yonent bu yonent bi waxee mu wax ñu bari dana koon Omar tuubeen la yéeféer la bu tub gëmu la dalay nax waaw mais jamono day dem di dem ba dem ba sax sunu borom di dëggal kàddu Omar ci ni dëgg alalu sunu borom la dëgg du ñun ñoo xam ne ñoo ko moom ñun on doit dire la vérité nan wax dëgg rek te yàlla tax léegi nag ñu bàyyi ñiy apprécier xam nga lu tax ma dellusiwaat ci lii lépp. Macky Sall ba muy voté sans carte d'identité fi la ñu fekk ñun ñëpp ñun ñëpp mais dafa mel ne lu normal la woon ñu bàyyi mu jàll li wolof yi naan weñ gi ma nga bañe ca mbañe xaan ga maanaam li tas sëy néew woon na ca ngoro ga waaye dañ kaa fayul woon loolu nag tey moo ñu yóbbee ñun ñëpp tey jii ñu nekk ci situation bi ñu nekk xam jikkoy nit na ci pat di seetaan parce que nit ki du ñàkk ni arrangé nañu ñii ñu ngi ciy fayeku weer ñii li naan ko boot sa sànqal ëmb sa ker sa genre xeetu wolof yooyu ñuy wax même bu nit nekkee ci tappale sax mais bu la dee jariñ wala mu am fu mu la féete nga ciy gis sa bopp sax yow da nga naan non comme man sama mbir mi ngi dox rek maanaam intérêt personnel mais ñun suñu problème Sénégal moo juboo ci l'essentiel mooy intérêt général liñ la dénk da la dénk moomoo ko booy dem da ko fiy bàyyi Abdoulaye mbay woyoon na ko njiit sàkkul boppam waaye yàlla mooy sàkk njiit waaye bul la dénk réew nga mel na yow yaa ko moom Macky Sall dañ ko am muñal ba sonn waaye nag xamul njekk baat boobu moom la mu koy wax parce que ci njekk la noo mais xamul njekk parce que li xew nii dafa jox dëgg Ousmane Sonko ci nit ki maanaam nit ki la personne jeune ne parle pas président de la République li tubaab yi naan ça c'est le naturel il revient toujours au galaw maanaam jikko ak borom pax ci loolu rek laa koy tënk Macky dafa falu en 2012 nekk ci réew mi Abdoulaye Wade bi muy taxalikook moom ñuy def passation de service daf na ko dinaa wax say nit samay nit ñu jàppale la bin xëyee ay tappi ay tapi lañ doon jiñ Abdoulaye Wade ay tapi loolu dama koy bëgg a fàttali waa PDS jël doom ñi na ràpp ci kaso bi Abdoulaye Wade dem na bay bëgg a xaru fii nan ma baal ci kàddu gi ci place de l'Obélisque mooy bi mu yoree oto bi ñëw foncé ci kaw takk der yi binnee di fa lii parce que boobu Macky ab Abdoulaye Wade tolloon na ci benn niveau boo xam ne Macky mi ngi koy xorñoñal li olof naan xorñoñal loolu tax waa PDS yi topp Macky tey daj na lu ne ci Macky waaye jaam boo ko bëggee goral sax am na ci jaam yoo xam ne dañuy jëlaat buum bi jox la na la yeewaat ma parce que bëgguñu gore loolu tax waa PDS ñu war a xoolaat seen bopp lan dem nañ ba comité directeur u PDS benn jamono boo bu la neexee nga defee ko rëbës parce que PDS comité directeur bi yëpp ñu ngi woon ci kaso bi Karim Wade mii tey jii ñuy wax dem na ba dugal ko ci kaso bi gaañ ko ci tànk waxuma la gaañ ko ci tànk waaye mujj nañu sax ak Karim Wade foo xam ne mooy takkaayu ay jabaram di Karine karin yaakaar naa jabar ji mu tuddoon karin jabar ji faatu ñu jël ay takkaayam ko ci tribunal loolu yi ak nguuram teg nañ ko Karim Wade PDS lay fàttali de gis nañ ci àtteb Karim ab procureur SMS dàq ko waaye yéen ñii tey dund li ak Macky Sall tey jii yéen a ko mën a jàppale pour mu toogaat fi parce que nee nan Karim Wade dafa war a bokk te dina ñëwaat Karim Wade est que dina ñëwaat question parce que wër ñëwaat da koy mën wala nga tal ko wala nga ànd ak wér-gi-yaram bu lay permettre nga ñëw loolu tax foofu laa ki yem duma ci sori parce que nit ki du li muy xam lépp lay wax mais Karim Wade est-ce que dina ñëwaat fii di participer ci élection loolu question la bu may posé waa PDS bu dee dañ ma gën a xam dara ci Karim Wade nan ma wax bu ñu xamul dara ci Karim Wade nañu wax loolu tax wala fi dañ ne bisa ngi ci bis yi kun ko wax ngay ree dangaa xamul li xew am na boo ko waxee xale nag day foog ni bisu tabaski la waaye nan yónni yàgg ñoom ñi ko jàppale nag ba rapport am rapport boobu daa am li muy firndeel rek li Sonko doon wax naan ñi ngi ci cooki fin mais chef de bande cooki fin lay dee lay daanu te tey jii li ñuy gis yëpp ñi ngi koy mettitlu parce que pour des raisons de principe dana war a def élection yi la vingt cinq Macky nee na dafay toogaat moom ak ay nitam moom sax ak yenn ci ay nitam te dinaa la wax nit ñooñu ànd ak Macky di ko bëmax pour mu dem élection lan lañ ci jublu man ci sama xalaat toog googu mi fi bëgg a toog dafa am benn baat bu Pape Djibril Fall waxoon mooy bi Macky nee du def troisième mandat Pape Djibril Fall mu def benn commentaire mu ne mujj gu rafet rek moo jar a ñaan xoolal Macky fi mu jaar ak sénégalais yi waaye bi mu ne bi def troisième mandat ñëpp a bég ma ne ko bul bul teel a tàccu de waaye mujj gu rafet googu bu doon ni suñu borom nam na ko ci moom moom bañ na ni déedéet neneen lay demee yàlla nag moo xam. yàllaawul axlam ni ko gars di waxee yàlla moo xam waaye moom dafa mel ne choisirul jaar ci bunt bu rëy bi def passation de service taqali ko ak ci njëkk ak teranga te Ousmane Sonko am na vidéo bi daw waxoon na ko ci ne ab mafia organisé ñoo nekk ci réew mi bëgg a toog ci réew mi am na ci ñoo xam ne waruñu sax jiite parce que ay baadoola lan waaye baadoola xamul njoowaan loolu olof yi wax mais ku xamul njowaan boo ko joxee avion bu yéege ba ci kaw du nangooti wàcc xanaa avion bi daanul boppam li nag maanaam baadoola njowaan rek mooy tax mu fuy mais boo ko joxee avion mi na naan ko roppalaan bi naaw mii dem di dikk mais kooku ni <laughs> wax te dëkk boo ko joxee avion <laughs> damay ragal <laughs> avion bay daanu waaye moom du du daanu loolu tax ma gëm ni ñu bari ñu jàpp ne Macky jàmbaar la Macky lii ak lee pour man fi mu jëm la xamul xamu ko ñun aussi xamuñu ko mais daal am na mag ñu doon wax naan du tàqalikook sénégalais ci njekk am na sax mag miy nettali li Cheikh Anta waxoon mais loolu lépp mënoon na ci mucc te nag buñ sañoon mu génn ci ci jàmm ndaxte jàmm nag lañ koy yéene yéene ko ñëpp parce que jàmm man lu tax ma ko yéene ñëpp wala fi dan naan jàmm ku ko bëgg da nga koy yéene nit ñi boo ko yéenee nit ñi rek yow nga am ko kon yàlla nu yàlla defal jàmm ñun ñëpp waaye nag jàmm dañ koy dox dañ koy wax te nag fu dëgg amul jàmm du fa am mu am benn kilifa PDS mu ngi dund ba léegi bu ma mës waxtaanal bi ñuy waat élection présidentielle deux mille dix-neuf du ma tudd turam pourquoi mooy revenir ci PDS lu bari mag la de démb maa ngi nettali wax ji El Hadj Modou Diouf man ko kilifa gi dafa ne. Abdou Diouf bal bi ko daaneel Abdou moo ko defar jox ko ay nitam ñu daaneel ko ma ne ko ci nan mu ne parce que Abdou bi mu demee ba war a dem élection dafa def congrès sans débat def code consensuel def onel def ay kuréelu politique yu dëgër jël élection présidentielle dénk ko ab ministre de l'intérieur boo xam ne dafa neutre bu ma juumul c'est général Lamine Cissé mu ne condition yi ko daaneel Abdou juuf moo ko liggéey quoi loolu la bëgg a wax ci bal bi daanal Abdou Diouf teg ci mu créer ay conditions yoo xam ne dafa permettre Tanor kii Diboka ni mu amewoon doole wala Moustapha Niasse ñu bàyyi dem bàyyi boobu ñu bàyyi dem dafa néewal doole Abdou juuf ba mu renforcer ay adversaire am mu ne kon bal bi ko daaneel moo ko joxe ñu dóor ko ko mu ne ma Abdoulaye Wade ki may wax ni magu PDS la mi ngi dund ba léegi mais am na ay soixante-dix ans mag la maa ngi koy nuyu waaye du ma tudd turam te bi may wax lii avant deux mille dix-neuf la ñu ngi tolloon ci coowal Karim Wade Khalifa Sall mu ne ko Abdoulaye wàdd nag lu ko daaneel mu ne ma Abdoulaye Wade bal bi ko daaneel dañ ko kaa dóor moom joxewul bal bi mais dan ko kaa dóor gars yi ñoo ko defar dóor ko ko parce que Abdoulaye Wade même au sein de son parti le PDS am na ci ñoo xam ne dañ doon lii mais gëmuñoon Abdoulaye Wade ma ni quoi ah, Macky nag fa lañ jëm ak moom mu ni ma bal bi koy daaneel moo koy dóor boppam góor gi moom wax loolu ma ne ko ci nan mu ne condition yi koy daaneel moo koy defar maanaam mooy xeex di xeex di xeex ba gisatul kenn ku ko jàppale ci xeex bi mu daanu te boo xoolee makki toll na foofu loolu tax ma gis ni lii jeex la lii parce que tey buñ demee ba toll ci jamono yi yoo xam ne ñi ko gënoon a jege dañu ko won ginnaaw di rocceeku benn benn di dem te dañuy gën a dem ñu dem ba tollaat ci beneen niveau société civile bi ñu jàppe woon ni danoo seetaan Macky Sall mi def lu ko neex ñëpp daje di waajal ay plan d'action contre moom ñu dem ba opposition bi mënul woon mobiliser contre Macky parce que ci biir opposition bi dafa amoon jamono sax nga foog ni opposition bi opposé wun Macky Sall mais Ousmane Sonko lay moom comme opposé demoon na ba ngay sentir loolu mu maanaam mu doon opposition bi mu am ay opposants yu ci biir yoo xam ne bu ñëwee duñ wax ci gestion Macky Sall duñ wax ci li mu def ci réew mi ak li mu fi yàq ak yëpp xam lu lay wax ki taal réew mi réew boo koy lii doo jaar ci ay néew réew boo koy lii doo jaar ci ay lii maanaam di gaaruwaale Ousmane Sonko gaaruwaale Pastef ne dañoo bëgg a taal réew mi mu dem ba opposition bi fi ne am na ci ñoo xam ne Sonko lañ doon opposé ñooñu ñëpp tey jii ñu jox raison Sonko jox ko dëgg ne pourtant lii lépp waxoon nañu ko dem ba sax ay journalistes chroniqueurs yi doon nekk dans les plateaux tey jii ñu nangu ni ñoom danoo juumoon ñu nangu ni lan doon wax amul ñu nangu lu bari ci ni ñoom danoo defoon ay erreur loolu nag. mooy jamono dem na ba jox dëgg usmaan Sonko maanaam weddi Macky Sall wala fi nee nan lu tëë feeñ dafa yàggul bu njaab yàggee rek gawar feeñ loolu tax boo booy wét nekkal ci dëgg booy wétaliku nekkal ci dëgg te loolu tey ji moom la temps bi jox Ousmane Sonko mu dem ba communiqué international bi tubaab yi jàpp ni li Macky Sall def du dëgg coupé internet ñu ni ko dind ko ñu ni ko bisu élection yi nga jàppoon respecté ko ñu ni ko argument yi nga jox des arguments fallacieux yi nga joxe pour reporter élection du dëgg pourtant ci jamonoy Ousmane sonk ak Adji saar médias internationaux yi di dal ci kaw Macky Sall pourtant ci kaw sonk la doon dal waaye tey jii dem nañ ba jamono jox ko dégg ñépp xam ne lu jig njaag Macky moo di njaag looloo tax ñu gis ñi gis ni Macky xeexam bii mu nekk ñu bari danoo jàpp ni dina ci am ndam mais mënu ci jëlee ndam ñu amal élection le vingt cinq wala ñu amal ko le quinze yépp a ci yam mënu ci amal ndam léegi nag li ñu koy ñaanal ñun mooy mënatu ci rafet ndax ñaaw na ba noppi te day gën a ñaaw mais le mieux mooy mu dal mu xam ne jeex na bu jeexee jeex na ndax ndaje bu neexee dafay tas te bu naqadee dafay tas kon na tas waaye bu sañoon day neex tas mais naqadi na ba noppi léegi mu dem ba wéet wéet wéet maanaam bu dee ni yërmande dese nañu tuuti ñun ku yërëmul Macky Sall amu xamoo lan mooy yërëm waaw parce que wéetaay mi ngi koy commencé di dal parce que nag wéetaay mënta weesu dem ba première ministre bi nga teg jàpp ni moo doon sa mbër mi la war a remplacer nga ni moom mooy man man may moom ñu dem ba ay nit yoo xam ne liñ tekk bariwul di la pousser yow nga koy jiiñ wala ñu koy jiiñ ni dafa dugal loxoom ci guerre wala conseil constitutionnel loolu c'est grave parce que même bu doon am na mais la dino d'innocence wala mu am début de preuve yi firndeel ni loolu am na dañ doon wax naan Macky Sall dafa jël justice bi teg ci concoom Macky Sall gëmul yoon loolu tax dama dégg Assane Sàmm mu wax ko mais mi doon wax bu dëgg bu ma yàgg gëm mooy Macky Sall amul culture juridique maanaam ay règlement ay loi ay droit ay yooyu pour moom du dara no pour moom du dara <laughs> du dara parce que report élection muy bii mu ju dugg benn dugg na ci li koy lu yoonam nekkul moom Macky Sall mooy ba mu convoqué le corps électoral jàpp bisu élection yi la ci pare mais waa PDS si APR yi lin naan mag am na loo xam ne mënu ko waxal boppam waaye ku ko waxal mu jël gars yi puus ko rek mu jël def lu ko neex loolu tax ñi may évoqué ay article sàngam ay mag loolu doo leen ko wax Macky Sall Macky Sall gëmul yooyu ay article ay yooyu Macky Sall li mu bëgg la gëm moom li mu bëgg maanaam bu amee objectif ne lii laa bëgg soxlaam yépp mooy li ma bëgg nan laa ciy jotee bu léegi nag moyen bu mu jaar pour jot ci baax na loolu c'est des pratiques machiavéliques loolu ñiy liir Machiavel danga ko ciy gis maanaam sa objectif mi ngi ne léegi nag noo ci jotee baax na nit ki doxe noonu boo ñëw di ko wax ay loi ak ay réglement yow yaa ngay wax loo xamul nekkul ci yooyu sax mu ngi ci yeneen léegi nag tubaab daa am baat bu mu wax mooy l'entourage resemble souvent à l'entouré wax ma ñi nga ñi ngay àndal moo wax la ki nga doon tey def na li mu def ñenn ñi mieux vaut tard que jamais génn nañ wan ko ginnaaw mais ba tey ji y a des têtus des yoo xam ne tey jii ñi ngi ci wetam di ko jàppale ci loolu mais jàppale Macky Sall ak langaamu ci moom mooy li olof yi wax lan mooy langaamu ci xobu taf xam na xobu taf mooy lan dama am garab gu ñuy wax taf xob bi dëgërul boo ko gisee day rëy waaye boo ci langaamoo rek daanu kon jàpp ci Macky teg ni mën na la sobee jamono yi mooy la nga ci xobu taf kon ku am ay tànk dawal daw ca ba ngay ami tànk looloy dëgg ñi xam nguur te xam dara ci mag yëpp war nañ ko ginnaaw même buñ gëmul li ñuy def Mimi Touré avec son expérience 2012 ba tey am na lu mu xencu dem na yoonam ñoom Aly Ngouille dem nañu toog nan waaye daal nee dem nan keneen ak keneen maam booy dem na parce que nguur boo ci yàggee même du nguur kase sax ba ci entreprise nii boo amee expérience entreprise bu demee bay jeex da <laughs> xam day jeex li may wax lii peut-être c'est un peu professionnel dama ko wax même am na fu ma mës a nekk dama jékki-jékki man leen gars yi fii day jeex de ñu la man la day jeex ñu man leen gars yi ma la man maa ngi dem ñu teg ci deux mois am yu feeñ parce que boo amee expérience xaw a liggéey fii liggéey fii après am yoo xam da nga koy xam mais mooy nguur aussi am na ñi nekk ci biir da xam ne jeex na ay latif ak ay gi yëpp jeex na da koy xam parce que jeex gi mooy Macky tey jubootul ak justice bi maanaam Macky dafa yaakaaroon ni lu mu sant justice mu def ko waaye justice boobu tey jii la dem ba ñàkk maanaam justice bi consi xola avant loolu saba si fay ak tribunal bu Dakar li àtte Sonko mu jël administration bi foofu yaakaaratul justice boo xoolee justice bi li mu mujj a mujj a seq ak justice yëpp li mu ci am ndam bariwul te pourtant toll na ne jamono lu mu wax justice mu def mais mu dem ba Sonko di am ndam ci justice mu xam ne mi ngi perte justice mu dem conseil constitutionnel pour ñu bloquer Diomaye bloquer Sonko li xew-xew Diomaye jàll mais jàppoon na ni moom mun na teg loo xam ne Diomaye du jàll Cheikh Tidiane Dièye du jàll loolay dëgg. ñu la ay Karim Wade mu bokk Karim Wade intéressé wul Macky Sall Macky Sall ci boppam la ne PDS li leen di xaar ba ci kanam xool leen jékki-jékki génne leen benn Mayoro Faye Mayoro Faye nan la mën a yor kàddu PDS Mayoro Faye dafa xuloo Karim Wade dem fekki yi ñu dem ba ne Karim Wade candidat la Mayoro Faye dellusiwaat tey Mayoro Faye mooy dem di discuter pour PDS est nekkul ni gars yi ñoo ne ko génnal lewalal ñu ba nu reporter élection yi léegi nag yow PDS du waxati yaay toggal fu ne di waxal PDS mais Mayoro Faye moo waxal PDS loolu entre parenthèse la woon loolu tax Macky Sall toog bi mu toog nii ak logique yi mu nekk ci justice bi dem na ba xam ne ñàkk na justice bi léegi nag crédibilité justice bi la yàq parce que conseil constitutionnel boo demee ba mën leen a jiñ lu toll nii gars yi naan ay corruption imagineel Macky mu ne procédure d'urgence la assemblée nationale déglu leen ma xel de ñun gars yi gën ñu muuse mu ne procédure d'urgence ci assemblée nationale moo tax mu ne day reporter élection yi maanaam commission d'enquête parlementaire lépp ci ñetti fan la ñu dóor ko mu daanu ñu ne non élection yi dañ koy pousse dañuy ibbi enquête euh, commission d'enquête parlementaire léegi yow nga ni léegi bi commission bi paree ba nga reporter sa mandat nga ne léegi mën nañ xaar six mois parce que liggéey commission bi six mois lay am léegi urgence bi amoon ak yàkkamti bi amoon ba tax ñu patam patamee ko ci ñetti fan mais yàkkanti boobu waroon naa mën a am ba commission bi du egg six mois mais boroom xam-xam yi dañ koy faral di wax ji nga commission d'enquête parlementaire enquête boo bëgg a suul dugal ko ci commission d'enquête parlementaire du mujj fenn loolu tax li ngay gis nii doo man doo ma doo gaw ma ni di nga gis preuve bu ne Amadou Ba moo corrompre même bu dee am na man ma Amadou Ba daraam doyu ma man du ma la nëbb daraam doyu ma même lii sax ñu koy bëgg def victime nii mun nañ ci sax ne yàlla rek moo xam parce que moo contresigné Macky renouvelé na ko confiance am te Amadou Ba xamoon na ni bu demee élection du gagné est-ce que du lii du luñ togg ñoom ñëpp bëgg fi nekk naan Amadou Ba ànd ci Amadou Ba lii góoma ci dara léegi mu bëgg fi toogaat urgence bu doon am na est-ce que commission war na demaat six mois ba muy postune élection le vingt et un le quinze kon taxawaay bi lan la war a doon mooy ñu bañ ko bàyyi mi am un mandat kabo cadeau comme Laurent Gbagbo j'espère qu'il na finira pas comme Laurent boo ñaanaluñ ko ko mais mandat cadeau boobu Laurent boo théorisé woon Côte d'Ivoire heure bu ñu waree dem élection mu tàppale ñuy pose ñuy pousse ñuy pousse ba mu mujj fi mujj man dama gëm ni bis bu ñu ko bàyyee ba le quinzième bii mu jàpp mu egg ci dina xëy na ñu ngi ci feetu Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre mooy dugg nañ ci euh, weeru décembre Noël c'est bientôt le premier janvier ceci ou cela alors que Macky est-ce que xam ngeen ni même bu organiser élection yi mun na fi def un an waat gars yi ñu ngi naan neuf mois parce que bu fi toogaatee un an maanaam bu defee élection dem deuxième tour daf fi toog diggante bi muy dem élection ak prestation de serment bi maanaam day mat un an kon mun na fi toogaat at te nit ñi bari bàyyiwul ci xel loolu tax taxawaay bi dafa a doon. ñu def la telle sorte que élection yi am le quinze te gars yi fi mu ne nii bu buñ taxawee mu lii de Macky nekkatul ci dara parce que ñi ko waroon a jàppale ci loolu yépp wan nañ ko ginnaaw communauté internationale parce que Macky tubaab la gëm mais tubaab bi sax war nañ ko ginnaaw léegi nag opposition bi ak réew mi ñooy am fulla ak fayda mais malheureusement Sonko nekku fi wax taxul biir fees te ay nitam mën nañu kàcc kàcc goo xam ne mën a manipuler dama dégg Souleymane Jules Diop mu ne léegi ma jeexal noo opposition bi ñoo ñaan report Souleymane Jules Diop koy nax opposition bi ñoo ñaan report fa la ko ñaane ak ban opposition yow yaa fi toog fii ci grand jury ci Babacar Fall après nga dem ci may mën a Ndour Faye nga ni élection yi dañ ko repousse ñu ne la lu tax. waxoon ay opposant ñoo ko ñaan de waxoo Sonko de waxoo Karim Wade da nga ne ñun suñ candidat bu ñu yor mënul gagné Souleymane Jules Diop yaa waxoon la booy génne leen ko vaar ko jox naa leen ay indice Souleymane Jules Diop moo waxoon loolu ne candidat bi ñu am parewuñ pour dem élection tey nga ni lu tax ñu rep ñu reporté élection yi opposition ñoo ko ñaan sa waxi démb yeeg sa waxu tey bu ñu fontoo ji nga ñiy wër Macky Sall ñoo ko sànq et Souleymane Jules élection yi ñuy wax nii man dégg naa Moussa Bocar Thiam mi ñuy wax ci affaire teleg ak yooyu ba léegi ci may mën a ndur fay mu toog xam ne wax na fi ay candidat wu daara ay jaaykatu ginaar xam ne wax na ko fi réew mi yëpp màbb ko ba muy gën di weddi man dégg naa sa prétentieux la mooy waa ji Moussa Bocar teg boppam fu mu nekkul waaye presse bi lu leen dal ñoo ko teg seen bopp ñoom tamit parce que ñoom may waa ji lu mayul kenn waaw waa ji taxaw mu ne. non man dinaa ko def un combat personnel parce que du ma nangu yenn candidats yi di nekk di dem élection parce que loolu dama ko def un combat personnel may munoon mi ngi may dégg kii muy dégg moo ko fa wax un combat personnel parce que man ñoom ñëpp laay seetaan parce que gars yi boo leen bëggee di jekku da leen di seetaan parce que ñoom lu mu wax tey bu subaa ñu génn ci ba yenn ñenn ñi duma nangu ñu doon candidat ñi dem élection di jël réew mi un combat personnel moom ma ko wax moom mooy kan yow lan nga tekki ci réew mi lan nga yow man danga nga fi jàng lu kenn jàng da nga fi xamul lu kenn xamul mais malheureusement ma kee ñu tooñ jël ay seer ay ngaaka yoo xam ne xamuñu dara parce que yenn yi xam dara doo ko ay ay waa daara ji sëriñ bu gën ay jaay ko gënaat gën di ko weddiwaat nan dama manipuler mais malheureusement nga dégg benn Abdou foofu na wala keneen naan li xewoon crise de xam na Macky day yebal ay nit ñoo xam ne dañu wax ba dugal ko Sénégal ñu dem fi élection at mu ne jamono ju ne Sénégal dem nañ fi élection de 62 à nos jours président bu ñëw am na loo teg Senghor indi Abdou parti de Abdoulaye Wade parti de contribution Abdoulaye Wade Abdou Diouf ñëw yaatal jàkk jàng ku mën a nool code consensuel ñu dem ba élection ministre de l'intérieur bu neutre ñu dem ba tey ji lee mandats ñu fexe ba organiser que de telle sort que depuis réfé depuis référendum 2001 ak Abdoulaye Wade yëpp ñu teg ko maanaam Sénégal nga ñuy delloowaat de ci koo xam ne yow da nga ne tu porte la la parole du gouvernement 62 mooy wane ni yow yaa ngi ñuy delloo ci ay Mobutu Sese Ko yaa ngi ñuy delloo ci foo xam ne ñun tey ji rêve sax delluwaat foofu. mooy wane ni amuñu argument pour défendre ce report léegi nag sénégalais yi ñoo war a am fulla ak fayda ju mat ci li ñu doon léegi nag nan lañ koy defee ak ban taxawaay la mooy askan wi danoo war a xam ni ñun fii ku fi falu ñoo la fal nit ki nag du du du la yaakaar ba pare di la yàpp ñu fi politique yépp ba ci Macky Sall ñun rek lañ yaakaar nit mënul fal boppam nit mënul fal boppam dan lay fal nga doog a falu lan moo waral nag ñu dem ba ay nit ñoo xam ne tey jii ñoom danoo fegal war a dem keneen ñëw mu ne bëgguñu ko teg lu dul ci ay tappale ak ay kàcc bu ma juumul Mariama Bala wala Aminata Sow Fall am na benn bindkat bu jigéen bu bindoon le Sénégal est l'empire du mensonge maanaam baat bi le Sénégal et l'empire du mensonge Sénégal da ngay ñàkk nekk parce que ku ne dafa jàpp dafa war a fen rek dafa war a kàcc pour ses propres intérêts loolu il faut ñu revoir ko xoolaat ko réew mi gënal ñu suñu bopp tey jii réew yi développé ci àddina yëpp dañoo jiital seen réew lañu jël seen bopp mais ñu feeg mi dox rek ça va man Omar mën naa sol yëre bu naa génn di lekk di naan ça va quoi alors que réew du social ay lekk ak naan yooyu social la mais il faut que ñu dem ci développement développement nag ay processus la ay processus la kon koy tey jii taxawaay bi ñu war a am ñu ñëpp war nañ ko xam xam li ñu moom mooy le droit de vote maanaam bu ndee ba toll ci bisu élection danaan njiitu réew mi dama toog ne opposants yi dama leen toog ne léegi delloo ñu ñun tur àq kon mi ngi noonu kon àq bi ñu war a am mooy droit wu vote te ñun ñoo ko moom waruñu nangu kenn du ko foqati kon le vingt cinq incha allah war nañ mën a dem voté ji le 2 Macky Sall may ñu léegi après ñu xool nag nan la def ak keneen kon di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye Diallo di ñaanal ñëpp jàmm ba beneen yoon incha allah.